baax euh, ci turu groupe Futurs Médias euh, bu ñu jógee ci loolu itam gannaaw bi nga xamee ni euh, nuyoo nañu dañuy daal di sóobu ci waxtaan bi waxtaan bi nag wàllu député yi la li ko waral mooy li xew ci assemblée nationale umpul kenn ci loi boobu nga xam ni dafa jëmoon ci soppar ñi lenn ci règlement intérieur bi te mu jur coow bala ñu ciy ñëw parce que dañu gis ni loi boobu mm, li ko sabab lu ci ëpp njëriñu député bi la. li tax mu nekk njëriñu député bi mooy président bi la ñu wax yokk nañu durée mandam ñu jóge ci président bi ñu dal ci groupe parlementaire bi ñu ne dañuy génn léegi ci fukki député pour groupe parlementaire fukk ak juróom lay doon benn ñaareel bi aussi ku génn euh, ci sa groupe parlementaire dooto mën a dem ci benn groupe parlementaire askan wi daanaka gisuñu ci bu baax seen bopp loolu nag du guléet lañ koy wax ci assemblée nationale dañuy wax ni mbooleem loo xam ne ay loi wala ñu koy wax ci assemblée nationale li ci ëpp li ci gën bari njëriñu député bi la yaakaar naa ni euh, présidente loolu di ngeen koy faral di dégg ma rax ci dolli sax leneen loo xam ni ñu ngi koy wax te xam naa ni jombul dégg ngeen ko muy législature bi nga xam ni ci la ñu nekk ñu bari dañ jàpp ni mooy législature bi nga xam ni moo gën a ñàkkal solo askanu Sénégal euh, ñaar yooyu nag bu fekkente ni dikk na ndax mën nga ma ci indil ay euh, tontu honorable député bala ñuy ñëw nag ci fond waxtaan bi. waaw Pape Ngagne dama lay dellu di la nuyu euh, di nuyu sama collègue Thierno bokkum di nuyu aussi borom kër gi monsieur le ministre Youssou Ndour di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan di leen balu àq ci koor gi di leen baal di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal te nangul ñu suñu koox euh, Pape euh, c'est vrai am na ay critique yoo xam ne yàgg nañ ko di ko dégg ci parlement bi mun nañu wax ne commencé wul rek. ci douzième législature bi parce que bu ñu fàttalikoo suñu ginnaaw tuuti amoon na benn jaxasoo boo xam ne amoon na diggante askan wi ak parlement bi ndax askan wi dafa gis woon ne liñ doon xaar ci parlementaire yi indiwuñu ko woon ñu ngi koy fàttaliku ñun ñëpp les événements du 23 juin deuxième législature bi bi mu ñëwee ñu ne dañoo andi rupture rupture la ñu waxante woon ak population yi euh, rupture boobu ñu waxante woon ak ñoom nag yaakaar naa ne boobu ba léegi ci la ñu taxaw euh, ndax damay njëkkee rek ci loi bi nga xam ne indi nañ ko barki Dembo Ndiaye ci assemblée nationale bi loi boobu li tax ñu andi ko bu askan wi waxee ne gisuñu ci seen bopp mën naa wax ne euh, mun am nañu raison ci benn fànn. ndax loi boobu li ñu ko indi mooy dañ ko andi pour Euh, defar suñu liggéey ci biir ar biir biir biir euh, parlement bi ni ñuy liggéeyee ci biir parlement bi moom lañ bëgg a setal bëgg ko rafetal moo tax ñu andi proposition de loi boobu. Mhm. Euh, askan wi nag mun na ci gis boppam ci wàllu démocratie parce que bu ñu waxee démocratie mooy état de droit démocratie mooy état boo xam ne dafay défendre population yi di défendre seen intérêt di défendre seen i liberté loi boobu ñu andi nag bu ñu ko jàngatee ba ci biir dinañ gis ne population yi am nañ ci njëriñ parce que am nañ ci gis nañ seen bopp parce que démocratie bi dañ ko gën a renforcer ak loi boobu ñu andi. d'accord. Euh... honorable dina dellu siwaat ak yow honorable Thierno Bocoum muy li nga xam ne rek moom laa ko wax bala ñuy ñëw ci li nga xam ne mooy actualité bi foofu ci assemblée nationale dafa lu ko jiitu li ko jiitu bokk na ci loi bi askan bi gisuñu ci seen bopp te loolu itam du guleen ci assemblée nationale loo xam ne lu ñu fay gis la di ko fa dégg njariñu député yi mooy li fa ëpp euh, bu loolu weesoo itam note bi nga xam ne ñu bari jox nañ ko législature bi muy douzième bi mooy nul loolu yaakaar naa itam yaa ngi koy dégg ndax mën nga ñu ci indil ay tontu. waaw jërëjëf Pape maa ngi lay nuyu encore une fois di nuyu sama collègue madame la première vice-présidente de l'Assemblée nationale xam nga Assemblée nationale dafa doon millier boo xam ni dafa am solo trop si réew ndax mooy représentation bu peuple bi mm-hmm. moo tax mbir mu sérieux la xam nga 23 juin ba mu amee buntu Assemblée nationale la amee loolu lu muy tekki mooy peuple bi ci boppam mooy sàmmal boppam assemblée nationale. tout à fait mooy peuple bi ci boppam moo bàyyi xel assemblée national donc su dee dañu def 23 juin ñu fësal loolu ne bëgg nañ dem ci rupture lu ñu doon baal yeneen législature yi. tout à fait waruñu ko baal bii législature. Mm-hmm. parce que fu ñu jugee moo sori. Mm-hmm. mu ànd ak nag ay sacrifice ultime mm-hmm. ay nit fa ñu faat leen ci. ñi ñu tëj leen ci et cetera. tout à fait Euh, moo tax suñu combat si biir assemblée national mu jëm si fàttali ne dafa am lu ñu fi indi ñu fi nekk ñu fi nekkoon nu ñu demee ñun noonu la ñuy demee suba Sénégal moo fi des te Sénégal boobu dañu war a taxaw pour liggéeyal ko jalon bu ñu poser rek na doon jalon boo xam ne dafay renforcer démocratie na doon jalon boo xam ne day protéger les libertés loolu nag la ñu gisul loolu indi coow li mhm. te mu am groupe député yoo xam ne dañ jàpp ne ne waruñu demee noonu. Mhm. waaw loolu nag mu doon lu lu doy waar. loo xamante ne ñun en tant que député. Mhm. Euh, am nañ si gàcce trop. am nañ ci gàcce trop parce que règlement intérieur assemblée nationale ba ñu ñëwee ak suñu fugg ñëw bees dañu def ay séminaire mhm. di dem Saly di fa fanaan nekk si di ci liggéey ak forum civil ñu ngi may dégg. ba defal document bu yaatoo yaatu bu taaroo taaru boo xam ne dafay jël en compte travail parlementaire nan la député yi war a def pour gën a mën a liggéey nan la député yi war a def pour seen liggéey gën a am rendement nan la ñu mën a def pour rôle bu ñu dénk au côté du président nga xamante ne moom c'est l'exécutif ñun ñun ñun le législatif nan la ñuy def pour rôle boobu ñu joué ko bu baax d'accord par bi ci ci jàpp ni assemblée yi gën a nul bokk na ci assemblée bi nga xam ne mooy bi ngeen nekk non xam nga man mënu def une étude comparative parce que nekk moon si bee assemblée ensuite contexte yi bokkul mais man li ma jàpp mooy ñun dañoo ta suñu dañoo war a tàmbali dañoo tàmbaleegul sax pour liggéey hmm. man loolu laa jàpp. parce que assemblée nationale après presque trois ans hein? voilà après c' est comme à du pays. Ah, xam nga <laughs> loolu. c' est compliqué ça. voilà c' dire que tey lu ñu tax ñuy wax assemblée nationale dëgg. Hmm. dëgg la war nga voter ay loi waaw. Euh, mais loi yi si bëri sa xool projet de loi la maanaam dañ koy indi ñu voté ko. mais lu ñu gën a amal solo mooy linitiative initiative parlementaire. député bi gis lëndëm lëndëm mu ne damay def commision d' enquête parlementaire. comme ni nga ko defee woon yow. koo xamante war na taxaw. ñu ne ah proposition de bi war nañ ko mhm. dugal. d' boo xamante ne day day yokk askan bi. Mhm. def question d' actualité def question orale. def liggéey parlementaire commission yi dox. ñu gis ne ne député yi ñu ngi liggéey loolu mooy liggéey parlementaire. d' accord loolu gisuloo ko fa. non loolu gisuma ko fa. d' accord euh, honorable euh, loolu mu wax gisul gisu ko fa yaakaar naa ni yéen a fa nekk bu ko gisul xëy na yow gis nga ko te loolu la ñuy xaar ci askan bi ndax mën nga ñu ci tegal baaraam ñu gis ni kat euh, assemblée bi animé na ci li askan bi doon xaar ci moom ci taxawaayam. waaw Thierno su waxee ne gisul <coughs> liggéey boobu ci biir assemble national hmm. man ndax may jaaxal damay laajte moom ban assemble national la nekk est-ce que nekkul est-ce que ci bii ñu bokk lay wax. parce que boo jëlee douzième législature bii lépp loo xam ne député war na ko liggéey. douzième législative bi liggéey na ko def nañu motion de censure def nañu euh, question d'actualité au gouvernement mu nekk mm-hmm. une première ñuy au premier ministre muy ñëw ñu ñu koy laaj mu ci tontu mu nekk lu bees loo xam ne dañ ko indi ci biir assemblée nationale bi euh, def nañ fi euh, levée de l'immunité de depuis sax liggéey nañ ko fi def nañ ko commission yooyu muy wax commission yi ñu ngi liggéey normalement ci commission d'enquête andi nañ ko fi def nañ ko fi am na ay député yoo xam ne nag am nañ ay initiative personnelle dem déposer seen ay proposition de loi mhm. mais proposition de loi yooyu bu ñëwee dañ koy teg ci table président de l'Assemblée nationale ñu jàngat ko bi ñu ko jàngatee dañu gis ne proposition loi yooyu dafay am ay incidences financières te député bi dañ ko tënk foofu loolu ñun ñëpp jooytu nañ ko su fekkee ne danga def proposition de loi boo xam ne dafay am incidence financière il faut nga def proposition de compensation da ngay def proposition ne ah xaalis bi nga xam ne mooy yokk ci proposition bi ma indi xaalis boobu fii lañ ko war a seetee fii lañ koy jëlee pour ñu mën a taxawal proposition de loi boobu mm-hmm. donc loolu moo tax proposition de loi yi yegg si ah bàyyi wuñ leen ñu dem parce que bu ñu ko xoolee dafa am yoo xam ne yii ni ko bindee d'abord baaxul am na yoo xam ne yii dafa am ay incidences financière te ñooñu andiwuñu solution de compensation loolu moo tax demuñu ci ba sori. Euh, beneen bi nga xam ne nag jox na ko ne euh, parlement bi yow yaa ko wax sax ne population yi dañ ne parlement bi mooy bi gën a nul. par rapport ak yi passé c'est vrai cer na wax na ko yu passé ñun ñu leen juger bi ñu mën a juger rek mooy bii nga xam ne ci la ñu nekk te bii ñu nekk euh, la douzième législative ni ñu ko waxee euh, lépp loo xam ne député war na ko liggéey ci réew. Mhm. député yi ñu ngi koy liggéey. Mhm. am na nag ay député yoo xam ne xamuñu li nekk ci assemblée nationale parce que buy député yi di liggéey ñoom du ñu ñëw. Mhm. bu fekkee ne question politique moo am rek si la ñuy ñëw. langaamu ci hmm. wax ba àdduna yëpp dégg leen hmm. bu question politique amul ñu dem seen yoon parce que douzième législature vote bu euh, euh, euh, loi yi nga xam ne wote nañ ko dafa nekk loi yoo xam ne askan yi dañ ci doon ko doon xaar ma jox la ci benn rek wote nañ fi loi sur la baisse des loyers bien que loi boobu am na ay problème mais dañ ko doon liggéey ay ati at di ko xaar bi douzième législature ñëwee si lañ ko taxawal hmm. andi nañ fa ay leneen loi yoo xam ne par exemple jigéen ñi seen xeex ñu ngi ko doon xaar la loi sur la nationalité jigéen ñi dañ ko doon xaar ay ati ati at bi deuxième législature ñëwee si lañ ko watee mu taxaw mm-hmm. af nag barki Dembo Ndiaye si lañ ko liggéey mu taxaw te peuple bi dañ ko doon xaar kon kañ bu ñu wax ne deuxième législature bi liggéey ñun kañ ñu ngi liggéey mais ña ca nekk nag te duñu ñëw ñoom ñoo liggéeyul vraiment honorable euh, présidente euh, ku la xam ni assemblée bi animé na et puis liggéey nañu ceex euh, nu li mu wax dafay li mu wax bu fekkente ni dé fekk si na li nga wax dafay mel ni kon yow benn assemblée nationale moom nga décrire bu bokkul ak moom bi mu nekk par rapport ak ah. argument yi mu la jox non non je pense que loolu waxin la rek daf ko waxee noonu euh, mais ñun ñu nekk assemblée nationale xam na ñu nekk assemblée nationale euh, dafay juum su waxee def nañ commission d' enquête parlementaire mosuñoo def commission d' enquête parlementaire dafay juum su waxee ne proposition de loi yi dafa am incidence financière soo ne dama bëgg léegi maire bi le maire ñu koy def suffrage direct loolu amul incidence financière soo ne président de l' assemblée nationale dama bëgg mu jugee mandat un an renouvelable dem nekk mandat cinq ans loolu amul incidence financière mm-hmm. te teewul ñu bloqué ko bañ ko jàllale mm-hmm. li ma wax c' est très xam nga assemblée nationale am na député yu fa nekk bëgg a liggéey bari nañ. trop jàpp naa ne sax ñu ëpp. mais dama ne ni ñu bëgg a fonctionner def la loi de la majorité imposer les choses ci orientation boo xamante ne méngoowul ak fu ñu doon xaaree. looloo tax askan bi ni bokk na ci assemblée yu gën a nul. bien que man mënuma def comparaison. Mhm. mais dama jàpp ne ne su dee askan bi dafa am lu ñu jàngatee assemblée. ñun ñi nekk ci biir parce que bâtiment bi du moom mooy liggéey nit ñi fa nekk la. tout à fait ñun ñi nekk ci biir ñu ñoo war a def lu tax. Mhm. ba suba ñu mën a fexe ba askan boobu daal di changer avis. tout à parce que askan boobu du mooyuwul assemblée su du mooyuwoon assemblée du ñëw 23 juin devant assemblée national bien sûr askan boobu mu ngi bàyyi xel assemblée nationale. maintenant ñun ñoo war a def ci suñu comportement ci suñu. Euh, bëgg liggéey ak suñuy teg loo xamante ne day jëmale mbir yi kanam. Mhm. askan bi mun a xam na ne ñu ngi liggéey. d'accord xam nga proposition de loi bi. Mhm. Euh, ni tax tey mën a la daf ñu dafa bette parce que dafa amoon dynamique de rupture bu ñu nekkoon ñun ñëpp. Mhm. dynamique boobu waroon ñu dugal si ñu def loo xamante ne dafay jëmale askan bi kanam. wax naa la ko sànq def ay séminaire si règlement intérieur bi un bon jour. ñu ñëw suñuy casier fekk si proposition de loi si reforme si modi buy modifier reglement intérieur man ba ma ko njëkkee gis sax dama foogoon ne lu ñu doon def boobu ba léegi sonn si loolu moom la ñu indil. Mm-hmm. waaye ba nga ko xoolee ba saytu ko. lu si bëri jubluwul lu dul mm-hmm. si. Euh, maanaam maa fi nekk lii laa bëgg a fësal. parce que combat bi laa bëgg a mëne loolu nag lañ ne. dafa doon loo xamante ne. Mhm. dañ yaakaaroon ne jeex na. assemblée nationale voilà. moo tax ñu moo waral xeex wi. ñu voilà honorable dugg nga daa rapidement ci sujet boobu eh, dafay tax rek ñu des ci rapidement ak euh, la présidente euh, honorable député li ma bëggoon xam moom mooy euh, ni mu ko waxee loolu moo jaaxal ñu bari ci euh, lu jëm ci coppite googu nga xam ni am na ci règlement intérieur bi lu jëm ci. bu njëkk bi ñu mën a jàpp moom mooy euh, mbiru président assemblée nationale bi euh, li tax nit ñi njorte ko politique ndax mën nga ñu ci indil ay leeral parce que bu fekkente ni tey ki nekk ci ci ci ci présidence bu fekkente ni sax loi bi di moom la visé mais présidence bi ci boppam la visé waaye dañu gis ni lu bari daf fi jaar ci wàllu politique. muy président Macky Sall bi mu fa nekkee li fa xew ci diggante bi ñëpp jàpp ni une fois au pouvoir xëy na loolu mooy ñëw pour régler ko alors ñu dem ba lu bari xew fi. parce que li tax ñu bari ragal ni politique la loolu mooy loolu dañu gis ni AFP gis nga coow li fa am dégg nañ kàddu yi Moustapha Niass yëkkati ay fan lañ ci teg ñu indi luwaa boo xam ni da koy bàyyi nag cinq mu continuer dootul nekk benn at ndax ñooñu njort ni politique dafa laxu ci laxasu ci loi bi ndax du ñu am dëgg ci wàll boobu. waaw euh, xam nga loi bi Pape Ngagne mën naa wax ne dafa am ñu ko jël di ko politiquer te loi bi li ko taxaw jóg du politique. parce que wax nga ko président Moustapha Niass ba ñu ko falee président de l' assemblée nationale en début 2012 su fekkoon de politique la rek keroog bañ ko falee sa ëllëg sa la ñuy ñëw ah président de la république sax mooy envoyé projet ñu ne le président et élu pour cinq ans mais nekkul. est-ce que du woon am na garantie yu mu doon xaar ci wàllu. garantie yooyu président Moustapha Niass est-ce que mu doon xaar. waaw ma yeggali. waaw Fane garantie defe naa ne ak le président Moustapha Niass moom dès le départ on a eu toutes les garanties ak avec lui loolu moom vraiment sénégalais yëpp sédd nañ ko déjà dès le le meeting du deuxième tour rek la ko wax ne man duma xeex ak yàlla. yàlla moo ne président Macky Sall mooy jiitu. kon ñun dinañ topp ci ginnaam donc moom dafa leeral position am dès le départ. Uh-huh. donc lii joxuñu ko ko pour ñu neexal ko wala wala leen mais dafa nekk loo xam ne askan wuy daf ñu fa doon xaar. Mm-hmm. depuis Euh, euh, ñu amender la règlement intérieure pour xeex benn nit muy le président Macky Sall xeex ko jël mandat bi jëlee ko cinq ans andi ko un an ba pare comme ni ñu koy waxee caractère rétroactif euh, non rétroactif de la loi ñu violé ko appliqué ko ba moom mu jógee assemblée nationale. bi nga xamee ne douzième législature ñëw na fi ñu askan wi doon xaar mooy nañu ñëw ñu indi coppite googu delloo président assemblée nationale cinq ans wam mhm. si la ñu doon xaar mhm. c'est vrai ñëpp ñoom dañu ne dañ koo yéex a def mais li ñuy wax rek def ko moo am solo mhm. ñàkk ko def moo bon parce que bu ñu fi toogoon ba législature bi jeex te defuñu ko xëy na dinañu am bor boo xam ne amel nañ ko askan wi te duñu xamante fan lañ koy fayee mhm. donc loolu lu am solo la loo xam ne sénégalais yëpp ci d'accord mhm. député yi à l'unanimité ñoom ñëpp ñoo d'accord ne war nañu delloo président Moustapha Niasse ba euh, nañu delloo assemblée nationale président de l'assemblée nationale c'est cinq ans mhm. ñoom si seen bopp temps ba nga xamee ne ñu ngi doog Euh, génn si si si groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar mhm. defoon nañu proposition de loi mhm. ne nañu dindi mandat bi un an yóbbu ko cinq ans taxul ngeen def ko itam waaw mais xam nga lu nekk da ngay bàyyi ba waxtu wa jot nga def ko donc am na ay réforme yoo xam ne mhm. engage woon nañ ko am ñu ko sant ji bi réforme yooyu ñooñu wax nañ ci mandat wu président assemblée nationale donc réforme yooyu comme président de la république daf ne 2016 mhm. lay xool naka la ñuy defantee réforme ñu ne ah toog fi ba 2016 mandat bi di jeex dafay sori kon nañ ko def léegi mhm. donc loolu dafa nekk lu am solo ci proposition de loi bi d'accord d'accord d'accord honorable ma dellu si waat alors euh, Thierno euh, gis-gis boobu ñu bari gis ndax yow bokk nga ci ak partagé nga ko ak ñenn ñi jàpp ni kat euh, politique ñàkku ci parce que garantie yi nañ ko ci seen loxo kon jot nañu voté loi boobu nga xam ne dina bàyyi président assemblée nationale cinq ans ci ci ci ci ci boppu assemblée nationale. waaw effectivement je pense que wax nga ko léegi mooy mbir mi defoon nañ proposition bu yàgg. tout à fait. pour ñu boobu sax fekkul ñu génn en fait fekkul ñu génn benn bokk yaakaar boobu ñu ngi nekkoon biir benn bokk yaakaar si lañ def proposition bi pour ñu jëlee mandat bi un an def ko cinq ans parce que gis nga soo yeggee pouvoir loo xamante ne jëm na si promesse te nga mën ko def rapidement loolu da nga koy féetale boor. loo xamante ne nekk na injustice. ba ñëpp xool ko ba ñëpp xam ko. da nga koy régler mu féete boor da nga koy régler mu féete boor. tout à fait ba ñu toogee ay jours ay at wala ay weer gisuñu loolu def si la ñu def au niveau de réew mi secrétariat national waxtaan si loolu si lañu suñu benn député Omar Sarr porté proposition de loi boobu. Mm-hmm. mais loolu ba mu amee dañu jël proposition de loi bi teg ko fële. ñu signé tey si proposition de loi bi pour indi mandat bi. am na suñu si bokk ñoo xamante ne ne boobu dañu waxoon duñ ko mës a nangu. donc logique politique moo changé. Mm-hmm. contexte politique moo changé. Assemblée nationale nag. du doxee ci contexte politique. Mm -hmm. assemblée nationale du doxee ci orientation politicienne assemblée nationale dafay dox ci ay principes. Mm -hmm. parce que su dee ñun ñëpp mànkoo nañ comme nu nga ko waxee ne dañ ko war a jox 5 ans ba ñu toogee rek waroon nañ ko jox 5 ans. mais tey mun naa wax ne ne daanaka 2 ans lañ ko jox parce que 3 ans yi romb na. Ah, chaque année ko ko aussi voilà joxuñu ko ko aussi président assemblée nationale ah, mm-hmm. c'est pour dire tout que ñun bañ koy teg dañu romb dañu transcendé woon. Mm. Euh, nit ki nit ki nit ki transcendé woon parce que ñu jàppoon na président la l'assemblée. tout à mm-hmm. lu muy lu muy tekki. te am na tamit loo xam ne war nañ ko jox nga ñuy jàpp ni am na dessous maanaam am na lu ci. lu ci ñuul ci wàllu. mais loolu lan lan lan nga ko. loolu laa wax contexte politique la. d'accord peut-être que euh, jubóo bi dafa gën a neex wala complicité bi dafa gën a ñëw. Mm-hmm. Euh, mais loolu mooy wane népp effectivement orientation bu ñuy jëlee loi yi. dañ koy hmm. féetale si ñoom si seen i bëgg-bëgg ak na la ñu nekkee ak nit ki. loolu nag la ñu la ñu la ñu la ñu dàq. d' accord Thierno d' accord Thierno excuse-moi alors honorable loi bu mel nii ak coow li mu jur yëpp mu jur ko ci ci présidence assemblée nationale euh, jur ko ci euh, groupe parlementaire yi. ndax jàpp nga ni daal nii ngeen ko yaakaare woon yaakaaroon ngeen ni bu ngeen yëkkatee lu mel nii ñu bari dinañ jàpp ni recul démocratique la maanaam lu dellu ginnaaw la ci wàllu démocratie li koy dëggal mooy un dixième bi ci cent cinquante muy quinze boo demee tey bitim réew fu mel ni France un dixième bi daanaka fukki député la te alors que lu tollu ci juróomi téeméer ci ay député ñoom ñoo fa nekk ndax jàppuloo ni euh, ñi gis ni itam deltu ginnaaw ci wàllu démocratie am na fa te xaaruñu woon loolu ci yéen lu mel ni da ko da leen di jox dëgg. Euh, Pape balaa may ñëw ci loolu damay dellu si tuuti rek ginnaaw. parce que su ñu àndee cinq ans yi loolu il faut ñu leeral ko sénégalais yi dégg ko aussi du président Moustapha Niass. moo tax loolu c'est clair loolu. waaw lool il faut mu leer. <laughs> Ah, te moom bi nga xamee ne def nañ proposition de loi boobu ki nga xam ne moo defoon. proposition de loi mais pourtant nag ngeen jàppoon ni Macky Sall moo tax. waaw mais boobu sénégalais yëpp a ñu. non non mais mais pourquoi ngeen ngeen mën ngeen war a ngeen jàppoon ni. kon Macky Sall moo tax loi Sada Ndiaye loi Sada Ndiaye contexte bañ ko doon defee tax dafa am lu ko jiitu. balaa ñu yegg si si loi Sohada Ndiaye bi li ko jiitu Sénégal yëpp xam nañ ko. mais contexte pour contexte aussi contexte pour contexte. yaa ngi fi woon maa ngi fi woon te li tax sax mu ne Macky Sall la tax dañoo voté loi bi juriste dañuy wax ne loi boo ko voté doo ko appliqué. ci tàng tàng bi la loi n'est pas rétroactive mais ñoom dañ ko voté ne ah Macky Sall mu ngi nii di jeexal moom lañ koy appliqué mu jeexal dem abal ñu kon loolu ñëpp leer nañ ne Macky Sall taxoon ñu andi loi boobu bii nag mm-hmm. visé wuñ ci principalement le président Moustapha Niass mm-hmm. parce que bu fekkee ne daf ciy bénéficier wutam du weesu deux ans xëy na bu amaatee beneen mandat mais dañuy wax laa loi ne doit pas être personnelle loi bi buñ koy def benn nit war ta tax. Mm-hmm. loi bu koy def dañ koy def. pour ñëpp voilà donc loolu moo tax. dafa impersonnel li nga xam ne nag andi nañ ko ci. proposition de loi bi coow li borom naa mën a ñàkk. Mm-hmm. ndax ñun ba ñu defee proposition de loi bi mu am trois députés yu ko signé xalaatuñu woon ne bu ñu ko andee dana andi toole bii yépp ndax jaru ko. xam nga lu ko lan moo andi coow lii yëpp mooy ñi nga xam ne dañu yaakaar ne ñoom seen àdduna yëpp politique lañ ko war a def parce que bu ñu nee ci biir loi bi li ñuy jëkk a régler mooy le mandat du président de l' assemblée na mhm. ñu modifier pour que mu am 5 ans ñëpp d' accord ci. Sénégalais yëpp d' accord non ñëpp d' accord ci. beneen aspect am na ñu ci d' accordul parce que ñu am na assemblée nationale dañ ko war a defal bureau bi yëpp. waaw am na ñu jàpp loolu parce que député la comme ñëpp dégg naa maître El Hadj Diouf wax ko mu leer nañ aussi te xel nangu ko. dëgg la voilà am na am na ñu ko wax mais de de la tradition du Sénégal. noonu la mës a nekkee dañuy def man président bi mu am un mandat de cinq ans député yi am un mandat deux ans argument bi mu indi mooy dafay nekk buur di bubb ci kaw député yi te loolu dafay fàtte ne ci biir réglement intérieur bi may nañu député yi bu fekkante ne dañuy contester président assemblée national ñu réunir xool naka la ñuy def ba discuter ko donc loolu moom di argument uh-huh. euh, li jëm ci deuxième aspect wu proposition de loi bi muy composition des groupes parlementaires okay. Uh-huh. dañu wax ne il faut le dixième pour nga am groupe parlementaire 150 députés dixième mi day nekk 15 députés Sénégal ba mu nekkee Sénégal ba tey booy def groupe parlementaire assemblée nationale il faut le dixième loolu la mës a nekk. Mhm. li xew ba xew nag benn contexte bu fi amoon la en 2002 2002 dañu dem élection législative. parti socialiste bi nga xam ne moo fi nekkoon di le mhm. parti au pouvoir sortant. Mhm. bi ñu demee élection PDS am 89 députés. PS am 10 députés. AFP am onze députés. donc su ñu appliquer le dixième. benn groupe parlementaire kese moo fay nekk. assemblée bi benn couleur rek lay nekk. bi loolu amee ñoom ñu waxtaan seen biir nekkoon kon nag nañu modifier réglement intérieur bi au moins ñu am bu dee sax benn groupe parlementaire wala ñaari groupe parlementaire loolu moo indi modification bi ñu jëlee ko un dixième indi ko ci dix députés. c'est clair PS. am groupe parlementaire am. AFP am mm-hmm. groupe parlementaire. Mm-hmm. donc loolu benn contexte la bu fi nekkoon loolu moo taxoon ñu modifier règlement intérieur bi pour def loolu. bi ñuy def proposition de loi bi lan la ñuy wax dañu ne nañu def texte yëpp ñu nekk en en cohérence mm-hmm. parce que bu fekkee ne pour saisir le conseil constitutionnel il faut le dixième pour def motion de censure il faut le dixième mais normal na aussi au niveau de l' assemblée nationale pour ñuy def ay groupe parlementaire ñu andi dixième. dixième bi di yaakaar naa ne loolu warta poser benn problème. parce que fii ñu toll nii Sénégal yaakaar naa ne coalition boo xam ne wóolu nga sa bopp war nga mën a waxtaan ak sa ay collègues députés. boo war faa mën a am 15 députés. tout à fait boobu mooy deuxième aspect bi. mais troisième aspect bi dinañ ci ñëwaat. mu mu jëm ci wàllu euh, ni ko euh, comment dirais-je Moustapha Diakhaté waxee woon xam naa dinañ ci dellu si waat euh, ñu des ci ci ci ci ci beneen wàll bi muy composition groupe parlementaire yi mais aussi boo dégloo présidente li mu wax lu yanu maanaa la bu fekkente ni pour nga def sa motion il faut dixième bu fekkente ni itam. pour nga def lu mel ni lii ngeen xam ne def ngeen ko conseil constitutionnel il faut le dixième kon jaadu na itam assemblée nationale un dixième muy quinze député mën a former seen groupe parlementaire pourquoi loolu mun leen ko dégg. non non xam nga loolu dafa dafa consacrer recul démocratique. comment. Euh, si lu leer xam nga ñoom ñëpp dañuy répéter même chose man damay conseiller sama collègue yi euh, même si dee benn constitutionnaliste dafa leen wax ay mbir nañ ko gëstu xoolaat ko. parce que depuis Sénégal di Sénégal ba léegi un dixième la loolu amul fii ma yoroon yow ni c'est le journal officiel de la République du Sénégal 29 avril 1978 article 20 bi dafa ne un groupe ne peut être reconnu comme administrative euh, administrativement constitué que s'il réunit au moins 15 membres te boobu c'était 100 membres am sur 100 en 1963 20 députés la woon 78 15 la toujours mbir mi da doon metti di diis di di di di jafe mu dem ba finalement oyof ba ñëw ba 2002 ñu def ko diis xam nga suñu waxee parenthèse la 2002 bi parenthèse la woon rek parenthèse nan lay concerner 2002 2007 2012 ba ñu def 3 ans ñuy soog a changer loolu ça veut dire que c'était une évolution démocratique yokk nañ diisoon na benn moment dem nañ ba woyofal ko pour nit ñi mën a am groupe parlementaire parce que en fait groupe lu muy indi groupe lu muy indi mooy mën a permettre ñoo xamante ne am nañ groupe ñu exprimer seeni besoins di mën a wax au nom des populations di mën a bokk fu ñuy noccee ak nocc ak defar mm-hmm. tey soo xoolee non inscrits yi ñoom ñoo ëpp fuuf mun na presque ñaari yoon lañ mat groupe libéral bu fa nekk. non inscrit tey pour question d' actualité au gouvernement bu mu ne guléet mu am fi su dee non inscrit nga nga soo posé question. benn. ñaari at encore nga xool ñaari at après. soo ko posé question. Mhm. waaye chaque weer nee nañ la na nga ñëw toog comme décor rek pour tàccu le premier ministre moo tax ñun yooyu duñ ci dem. Mhm. donc loolu ñu def dañu acquis démocratique la ñu foqati. defuñu ko en 2012 parce que ñëpp amoon nañ programme avant ñu ñëw assemblée nationale. xamoon nañ luy acquis démocratique xamoon nañ luy recul démocratique. loolu musu woon bokk suñu waxtaan ñu doon waxtaan ba ñuy def règlement intérieur parce que kenn ñemewu ko fa woon yëkkati ñëpp xamoon nañ ne lii acquis la parce que mooy créer la pluralité. si biir assemblée nationale. nit ñi mun a joxe seen xalaat mun a wax lu ñu bëgg mu dox ñu indi lu askan bi bëgg ñu waxtaan parce que premier président de la république si boppam moo ne la dialogue politique biir assemblée lañ ko war a defee. waaw nan ngay defee dialogue politique nga ne nga ne ku mel ni Thierno Bocoum benn yoon la la war a wax si ñaari at maanaam législature bi si jeexee ñaari yoon lay wax ak premier ministre la koy poser question sur ko askan bi mais loolu lañ ne teguñu ko fenn. d'accord donc dix députés yooyu ñu wax te yóbbu ko quinze. Mhm. dañ ko def pour jafel constitution groupe parlementaire te constitution groupe parlementaire nag wax naa ko léegi dafa am solo ci assemblée nationale fu may daanalee mm-hmm. mooy tey malgré mu nekk dix soo xoolee su sous région mu nekk non lu mu lu mu nekkoon dix parce que ah, nekkagul quinze suñ lu loi bi lay nekk quinze mais malgré mu nekk diis ñaari groupe rek lañu am mm-hmm. soo demee tey Mali am na cinq groupes soo demee Burkina am na cinq groupes soo demee euh, euh, euh, Côte d'Ivoire maanaam même pays yoo xamante ne ñun ñoo leen gënoon fës ci démocratie tey. ñoom ñu ngi créer condition yuy tax ñoom ñëpp ñu bàyyi ñu ginnaaw pourquoi parce que bëgguñu contradiction am au sein de l'Assemblée nationale loolu moo dommage vraiment dommage président bu fekkente ni noonu mu ko waxee noonu la demee euh, deltu ginnaaw ci démocratie mënu ko passé lan la leen déranger plusieurs groupes parlementaires ci biir assemblée nationale bi euh, pas plusieurs groupes ci biir assemblée nationale bi dérangé non inscrits yi bari nañu wax na ko mais ñoom ba nga xamee ne génn nañ par exemple groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar mënoon nañ former seen groupe ndax amoon nañu dix députés pour former seen groupe waaye ñoom seen biir bopp seen biir sax mënuñu woon juboo pour mën a teg groupe bi parce que boo gisee wax ji wax ji wax na ko léegi nee na su fekkee ne non inscrit nga doo am espace pour mën a wax ak yooyu mais du question d'actualité rek nga mën a wax ak gouvernement question orale mën nga bind ministre bi li nga ko bëgg a laaj nga bind ko yónnee ko ko te dalay tontu donc du question d'actualité rek moo lay permettre nga mën a wax sa soxla. Mm-hmm. mën nga wax ci commission bi mën nga wax ci plénière yi mën nga def question orale yónnee ko yónnee ko yónnee ko euh, ministre bi nga xam ne moom nga bëgg laaj li nga soxla. Mm-hmm. kon mu mënu wax ne bu ñu wax ne rek loolu dañ leen di tere wax. loolu mënta ne bi ci des mooy. Euh, ñoom ba ñu nekkee dix députés wax naa ko amuñu woon groupe parlementaire. Mm kon su ne tey ñaar rek la ñu am <laughs> lu tax amuñu amuñu amuñu ñett. alors kon bu ñu nañu mën a waxtaan seen biir. Mhm. juboo ba am ñett wax ji wax ji paam ngañ xam nga lan la du. cadre d'expression du ne dañu bëgg a wax fa am fu ñu wax wala dañu fekkee fa ñu naseeg fa ñu nocc parce que même boo nekkee non inscrit di am ku lay représenté fa nga xam ne mooy bureau assemblée nationale la fay def ak la ñu fay wax yépp di nga ko xam di nga am compte rendu bi mm-hmm. li ci nekk ba nekk ci xam nga mooy lan dafa am ñoo xam ne ñoom yaakaar nañu ne politique wala pouvoir lu nekk moo di rek ay ay ay ay ay ni koy waxee mm-hmm. ay avantage avantage yooyu accompagner groupe <coughs> parlementaire bi loolu mooy seen problème waaye du am foo waxee que boo amee groupe parlementaire di nga am président groupe président groupe day am ay avantages. Mm-hmm. di nga di nga am président commission président commission day am avantage donc avantage yooyu ëmb euh, groupe bi yooyu moo leen intéressé waaye du rek cadre d'expression. parce que bu dee cadre d'expression rek mun nañoo wax ci plénière yi mun nañoo wax ci commission yi seen soxla yëpp ñu wax ko ministre boo soxla mun nga ko defal question orale jox ko ko. waaye li ëmb groupe parlementaire bi loolu moo leen intéressé. li ëmb bi li ëmb groupe parlementaire bi mooy wàllu xaalis. voilà. léegi loolu moo leen intéressé loolu moo leen intéressé ñoom yéen ngeen bëgg leen ko xañ lu tax. non du question bëgg leen ko xañ sax mais parce que Pape dañu wax ne dëkk aussi dafay dox day avancer avancée démocratique il faut mu am xam nga def ne bu ñu jugee 10 euh, députés dem quinze députés recul démocratique la. Mm-hmm. mais ëllëg par exemple mun nañu am un parlement de de de 200 de 200 députés. Mm-hmm. bu ñu amee un parlement de 200 députés lan la ñuy waxaat dañu conserver les les les 10 députés ba tey. Mm-hmm. mais bu ñu nee mais un dixième ça règle l'affaire bu ñu amee 400 ak bu ñu amee 500 yëpp un dixième rek la jël. mais avantage pour koi ngeen jàpp ni waruñu leen ko waruñu leen ko yombalal avantage yi lan moo lan moo tax. da ngay yàgg da ngeen xalaat ni dafay nekk ngànnaayu politique. ci ñoom wala lan la du doon sax nga nekkul sax ay affaire ngànnaayu politique. mais dañu toll ci jamono joo xam ne. waaw dañu war a rationaliser les dépenses. alors c'est important kon Thierno wax yëpp mooy avantage yi mooy li nga xam ni moo leen gën a ñor ci groupe parlementaire yi bu fekkee sukkandiku nañ ci kàddu yi nga xam ni euh, honorable député wax na ko. avantage non débat débat débat boobu du ma si wuyu parce que loolu loolu moom si boppam xam na ne ça n'a rien à voir xam nga tey soo amee groupe parlementaire. Euh, dafay wute xam nga tey nee naa la non inscrits yi ñoom mën nañ presque ñaari yoon groupe libéral. mais question d' actualité au gouvernement xam nga groupe libéral ñaata lay am 3 lay am non inscrits benn ñoom ñu am 10 cest à que ñoom ñooy woo seen gouvernement. pose ko seen question à l' avance. mu préparer ay réponse am. ñu ñëw toog wax ak moom mu tontu leen amul tontuwaat. donc mise en scène la quoi. non mise en scène la amul tontuwaat c'est-à-dire que. soo xoolee par exemple premier ministre wax si to si cité Tobago bi et tout ça ah, ñun dañu demoon foofu xam lu fa nekk. su amoon tontu dina leer. kenn mënu ko tontu parce que noonu lañ ko tëralee ñoom ñoom ñoo nekk bureau assemblée nationale ñun teewuñu fa. ñoom ñoo tëral ne léegi mais borom kër yi ci Tobago ñoom tontu nañ ko. voilà voilà mais mais lu gënoon. Uh-huh. mooy xam nga soo waxee dialogue mooy interaction. tout à mooy nga wax ñu tontu tout à fait waaye nga ñëw ñu posé ay question à l'avance yow nit ki day ñëw rek répéter question yi yow nga taxaw def sa communication après dem sa yoon donc l'Assemblée national dañ ko def tribune pour le gouvernement maanaam dafa mel ni dañ ko jël jébbal ko gouvernement d'accord alors li ma ko bëggoon wax léegi wax na sama formation group député mm-hmm. xam naa dina nekk dina ñëw si beneen point bi parce que problème bi mooy nit day am député yoo xamante ne ne xamuñu ñoom nan lañ leen indee mm-hmm. mais il se débrouille pour même député yu nga am duñ la ko bàyyee dañ koy rocci pour nga bañ a am groupe effectivement dix députés mënoon nañu permettre ñu am groupe mais ñëpp gis nañ nu mu demee dañu rocci suñuy député rien que pour ñu bañ a am groupe ñu essayé waat tante waat ñu rocci waat léegi nag comme dañoo sonn si rocc bi ñu ne léegi nañ ko def loi ok léegi comme ñun dañoo sonn comme yéen chaque fois yéen a nga bëgg a teg léegi nag dinañ ko def quinze ngeen am problème te rocc bi dafa am lu muy laaj <laughs> rocc bi ci suuf dafa am lu muy laaj. waaw dafa am lu muy laaj bien sûr alors dama dama dama jàpp ne euh, suñu concentré woon ñoom seen énergie. Mm-hmm. si jox image bu baax assemblée nationale. xam nga soo taxawee ne loi sur la baisse des loyers nit ñi bëggoon nañ ko voté nañ ko mais loolu yëpp na préciser que yooyu ay projet de loi la. Mm-hmm. maanaam président moom mooy am ay pro projet de loi am ñëw jébbal ko assemblée nationale su ko neexee mu ne urgence lay dugal. maanaam lu mel ni code des impôts dañ ko indi ak nu mu toll procédure d'urgence code des collectivités locale dañ ko indi ak nu mu toll ñu ne procédure d'urgence si ñaari fan ñett nga daal di voté xamoo sax lu nekk si biir jëluñu temps wu discuter ñoom yooyu lañ war a occupé wu te loolu lañ doon xaar si réforme règlement intérieur maanaam xool nan lañu def pour jox député yi jumtukaay yi war a mën a tax ñu def seen liggéey foofu lañ leen doon xaar malheureusement Euh, ñu ñu ñu nekk si loo xamante ne ne méngoowul ak lu ñu leen doon xaar. d'accord d'accord euh, alors juste rek terminer wax na léegi question orale mën nga jaar. ah bien euh, na ko contrairement à li nga. waaw léegi moom na la wax kañ lañ mujjee def question orale au gouvernement kañ lañ mujjee woo gouvernement pour question orale ba seen affaire question d'actualité au gouvernement yi taxawee ba léegi question orale amatul. ah kenn du ñëw assemblée pour ñu wax question orale. d'accord question d'actualité o gouvernement wax naa la ko léegi. ni ñu siy ah, ah. waxee. leer voilà écrite am na. donc question écrite au gouvernement am na vraiment ñun ñoo nekk assemblée xam nañ lu fa nekk. d'accord d'accord léegi honorable je vous en prie alors euh, ñu ñëw ci beneen beneen wàll bi ba tey ci loi bi nga xam ni moo parñi lu aju ci règlement intérieur bi gannaaw euh, président bi ak mandam gannaaw euh, composition groupe parlementaire bi mu des nag lu aju ci wàllu transhumance bi vagabondage parlementaire sax la ko Moustapha Diakhaté tudde mais man dama ciy ñëw ci benn wàll parce que man dama dégg président Macky Sall ci Kaffrine. mu ne xaw ma pataas sama gënal pompiteer kuñ ci tëj sa avocat moo baaxul n'est-ce pas loolu la wax ah mu ne dañu war a bàyyi ku nekk parti bu la neex nga dem fa lu mu la neexee mu dem ci egg ba ci ay Aïdara ni ko yow RFM nga nekkoon jóge nga fa dem nga bërëb sàngam bàyyi leen jàmbur waa léegi lan moo soppeeku ci diggante bi te loolu nekkoon idée président de la république bi nga xam ni tey moo incarné politique bi ñuy xaar ci réew mi. waaw euh, euh, président de la république Pape Ngagne li mu wax mën naa wax ne waxam la encore mais ñun député yi suñu liggéey la ñuy la defar et puis président logique bi mu nekk ak ñun logique bi ñu nekk du benn. xam nga lu tax président de la république Macky Sall ba ñu ko falee dafa ñëw ne la patrie avant le parti moom parti politique ay APR ay réew mi ay yooyu intéressé wu ko li ko intéressé mooy la patrie moom dafa am ambition wu tabax dëkk liggéey Sénégal liggéey boo muy liggéey Sénégal wax ni sénégalais bu mu neex. war ngaa mën a ñëw fekk ko ci liggéey boobu jàppale ko ci Sénégal émergent bi mu teg bu fekkee ne Idrissa Seck mi patron na Bocoum war naa mën a ñëw jàpp ci Sénégal émergent boobu président de la li mu ngi koy xaar na ci ñëw jàpp su fekkente ne maître Abdoulaye Wade ci boppam war na cee mën a jàpp président de la République mu ngi koy xaar na ci ñëw jàpp président de la République logique boobu la waxee te soo xoolee ba xool euh, li ñuy wax ay transhumance transhumance yëpp ban responsable bu mag nga fi gis bu jógee beneen parti bu ñëw bokk biir APR ba am fa cër bu rëy li président woote nag mooy construction de la nation kenn ku nekk mun ngaa mhm. bokk réew mi tey bu subaa nga ne dem naa fekk ji Macky Sall pour jàppale ko d'accord loolu mooy li nga tontu ci li mu wax ñu ñëw ci wax na ko nee na amuñu dix député parce que dañoo rocc seeni député loolu la wax nee a saafaraal la ñu bëgg a déet dafa ne moom amuñu dix parce que ñun ñoo rocc ay député waaw bi day ñëw pour saafaraal ko problème boobu kon waaw loi bi dafa ñëw pour que député bu nekk coalition ba nga xam ne moo la fal nga bokk ci groupe parlementaire boobu boo fa démissionné nga génn dem nekk non inscrit dañu wax ne nag loolu confiscation des libertés la ak euh, esclavage ak recul démocratique mais su fekkante ne liberté dala may bu teyee nga nekk fi bu subaa nga nekk fi bu su gannaaw subaa nga nekk fi am na loo xam ne bu la ko liberté may itam sa ngor waru la koo may ndax bu fekkante ne coalition daf la investir ci liste bu fekkee jàpp nga ni coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom dañu nekk pour liggéeyal réew mi jàppaloo ni yow itam ni ko président xalaate rafet na yow député bi nga ñëw bokk ci boobu boobu boobu groupe parlementaire. bàyyi ma Pape Ngagne ma yeggale dama ne am na loo xam ne sa liberté bu la ko mayee. sa ngor waru la koo may. parce que bu fekkee ne danga bokk ci benn coalition. coalition bi investir la ci liste nga defee campagne. Euh, programme mu coalition boobu. ne dañuy wut majorité ah, ne dañuy wut majorité pour jàppale président de la République non réglé wuñ ay problème dañuy wax rek seen problème yéen yéen waa waa Benno Bokk Yaakaar. non réglé wuñ benn problème dañuy wax mel ni li ngay wax nii si réglé seen problème la de. réglé wuñ problème de dañuy wax rek li nga xam ne. yéen a àndoon dem ci campagne de. ñoo àndoon dem campagne yéen a ko financé woon aussi. ñoo ko financé woon aussi. alors loolu la ngeen bëgg a réglé kon programme mu Benno Bokk Yaakaar bu ñu ñëwee ba ci biir assemblée nationale dem boo gisatuñu seen bopp ci biir Benno Bokk Yaakaar ñu ne ah lëngoo neex na kat waaye ko ba mu dem ak mbakkam bàyyi naa leen maa ngay dem mais non inscrit lay doon du ma dem di farfee duma dem di farfeneen par ngor kese moom loolu moo war a nekk beneen bi ci des nag wax na ko léegi dane dañoo rocc ay député mu ñun ni ñu doon tàntee di rocc ay député moom tamit noonu la doon tàntee di rocc suñu ay député ah d'accord di dem ay hôtel ay guddi ak ay yeneen ak yeneen kon loi bi ni mu leen méttee ñun ñun noonu la ñuy méttee parce que ñun i tamit ñun ñoo ci gën am lu ñu métti parce que ñun tey mënoon nañoo bëgg jël ay député yeneen duñ ko mënati. ñoom itam duñ mën a jël député keneen. keneen koo xam ne daal groupe bii nga bokk boo génnee ci groupe boobu da dem nekk non inscrit bu ngeen sécuriser seen bos rek mënu leen leen minoritaire. waaw ñun kenn dañuy sécuriser suñu ah, bos bi nga xam ne moom la am moom. <laughs> dañ koy sécuriser. mais daal loi li mu wax moom dafa leer nañ li ñu tuddee euh, valse yi bi député yi di nekkee bu tayee nga nekk fii bu tayee bu ma xulee parlementaire bu ëllëgee ma xuloo ko génnaat dem defaat beneen groupe parlementaire loolu moo fi war a jeex. groupe parlementaire yi il faut ñu stable. c'est bon alors euh, Thierno Bocoum loolu aussi lu leer la parce que bu fekkente ni aussi yoon may na la ko sa ngor mën na la ko bañ a may mënuloo nekk ci benn bannière dem ci campagne électorale dem nekk député. dem ba mu neex la nga bëgg fa jóge dem feneen yaakaar naa loi bu réglé problème boobu réglé na problème bu am solo. waaw xam nga ñoom nu ñuy nu ñuy tontoo si si question yi rek ak argument yi ñu joxe rek ngay xam seen état d'esprit maanaam euh, loi bi dañ ko teg pour effectivement combat politique. parce que soo waxee nag nga ànd ak nit et cetera et cetera loolu ay mbirum considération yoo xam ne ne c'est lié au parti politique. xam nga tey coalition benn Bokk Yaakaar parlons-en. coalition benn bokk yaakaar honorable dañ ko teg ci anam boo xamante ne ku si ne dafa indi apport am maanaam nu ñu tegee coalition pour dem élection législative c'est au prorota des performance des candida au premier tour de la présidentielle maanaam yow lii nga am lii lañ lay jox yow lii nga am lii lañ lay jox donc coalition boobu kenn moomu ko donte am na ñu si ëppale. Benno Bokk Yaakaar moo ko moom. Benno Bokk Yaakaar kan la. c'est un cadre. waaw mais justement c'est la somme. voilà des efforts des uns et des autres. Mhm. la contribution des uns et des autres. ok d'accord moo indi coalition Benno Bokk Yaakaar. waaw. donc su ma àndeeg diw. Mhm. ba ñuy def campagne nga ne rupture laay def dinaa def lii assemblée dinaa def lii dinaa def lële ñu dugg ñu nekk député ñu ñëpp. ma gis ne ne yow li nga waxoon ba ñuy campagne defoo ko waa léegi awma droit man kii te la dem ànd ak keneen. ci liberté de sañ nga ko. mais pourquoi ñu ne la parce que ñoo àndoon. Mm. par force même su dee yow danga nga nax par force da ngay tënku ci sama groupe. mais xam nga loolu sax garaaw lu gën a garaaw xam nga lan la parce que ñoom raisonnement bu ñuy def toujours si benn bokk yaakaar lañ koy def Mamadou Lamine Diallo dafa def campagne mm-hmm. nekk député. mu dugg biir assemblée nationale gis na ne mun na def ak waa Benno Bokk Yaakaar ñoo bokk affinité politique. mu dem dugg Benno Bokk Yaakaar waa kooku su demee ba gis na ne. gisatul boppam si lii nga xamante ne moo taxoon mu dugg te mu gis boppam feneen amul droit gis dem gis boppam feneen. tout à fait amul droit démissionner daal dem foofu. ni mu fa duggee woon. groupe PDS. Mm-hmm. ñaanuma ko yàlla tey su amoon problème am ñu démissionner. est xam nga ne ñooñu amuñu droit dugg feneen maanaam ñu gisee sax ñeneen ñoo xam ne ne peut-être mën nañoo ànd pour def groupe amuñu droit parce que loi bi dafa ne en aucun cas mënoo dugg si beneen groupe. ok mais loolu ban loi la. ok mais mën ngeen ma baal wax ma loi bi aussi lan la wax ci plus fort reste bi nga xam ni non inscrit la moom dafa dugg assemblée nationale non inscrit toog jàpp njàmburam. par exemple ku mel ni Djiboka. waaw non non non non inscrit ñooñu aussi ndax loi bi lan la wax ci ñoom s'il vous plaît. non non loolu loolu loi bi waxu loolu loolu ils sont pas concernés. par ñooñu ay non inscrit lañu. ñooñu mun mais groupe parlementaire bu ñu bëgg dugg mën nañu fa dugg. wala groupe bu ñu bëgg mën nañu fa dugg. ah groupe bu ñu bëgg mën nañu fa dugg non groupe bu ñu bëgg mën nañu fa dugg. lu loi bi wax dafa ne soo démissionné groupe. ok mënoo dugg si beneen groupe. mais boo nekkee non inscrit mën nga dugg ci groupe bu la neex. non soo nekkee non inscrit mën nga nekk si groupe bu la neex c'est clair ça hein? non loolu c'est non loolu c'est clair. génn ci benn groupe di dem di dugg ci beneen groupe. da ngay génn kay nekk voilà c'est pour mm-hmm. dire que. Mm-hmm. Euh, loi bi soo koy xool dafa mel ni ay député ñoo jug décider na léegi yéen député yi amu leen droit def lii fii ngeen di toog doo leen fi jugee. wala soo leen fi jugee it fee ngeen dem xam nga non inscrit ci pays yëpp. Mm-hmm. non inscrit c'est un choix maanaam xam nga article 20 règlement intérieur bu assemblée nationale. dafa ne les groupes les député peuvent se constituer en groupe par affinité politique maanaam nit ki moom mooy xool. waaw loolu de leer na la kan moo ko neex ak kan la xalaat ne mën nañu ànd ñu def seen groupe. donc du group bi la war a stabiliser mais ak ki liberté député bi la ñu war a stabiliser. fexe sax ba non inscrit du fa am. voilà nekk ay groupe exactement loolu mooy li gën maintenant mun nga ne fii aw ma affinité kii aw ma affinité ñi léegi non inscrit la loolu mooy non inscrit donc fi ñu jëm ci mooy non inscrit nar a gën a bari groupe parlementaire. exactement voilà dafay imposer léegi nga nekk non inscrit maanaam soo démissionné. c'est clair amoo droit dem fenn mais non inscrit ngay. Euh, na la impo donné da lay imposer nga nekk ne non inscrit. Mm-hmm. wala nga toog ci groupe ba nga xam ne ñoo la andi biir assemblée nationale. Mm-hmm. xam nga euh, dafa am euh, liggéey boo xam ne assises nationale yi liggéeyoon nañ ko fi ñu am ay réformes yoo xam ne indi nañ ko jëm ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci biir parlement bi. Mm-hmm. règlement intérieur u assemblée nationale dafa wax ne député boo xam ne génn nga ca parti bala fa addi woon da ngay perdre sa mandat. non constitution ko mhm. ak le règlement intérieur l'a répété. non mhm. ci réforme yu bees c'est l'article ko voilà je suis d'accord. Mhm. mais mais nu mu tuddati euh, wax ne député boo xam ne démissionné nga ca parti bala fa addi woon. député boobu dafay perte mandat woon. mais boo xoolee jamono yi ñu passé yëpp. député yi bu ñu ñëw assemblée nationale du ñu ñëw par parti. dañuy dugg ci coalition ñëw. coalition bi porte la andi la biir assemblée nationale nga jékki-jékki démissionné ca coalition boobu loolu lan lañ wax. d'accord dañuy bàyyi noonu rek député yi tey ñu nekk fii suba ñu nekk fee suba ñu nekk fee. il faut ñu stabiliser groupe parlementaire pour que liggéey bi gën mën a yomb. ci biir assemblée alors ñoom nag loolu la bañ a dégg. d'accord ci stabiliser ko dafa tax ñu yàkkamti ko def ba juum ci ni nga xam ne noonu la ko voté parce que loolu itam c'est important <laughs> yaakaar naa ni yàkkamti ko euh, pour def ko moo waral njuumte bu rëy bi nga xam ni am na ci euh, parce que tey jii bu ñu sukkandikoo rek ci euh, limub député yi nga xam ni toll nañ ci fukk ak juróom-ñeent ma dégg maître El Hadj sax mu ne ëpp na ko fanweer tey jii signé nañu boobu boobu pétition certes dañu soxla rek lu ëpp 15 pour mën ko def loolu dafay wane ni kon décompte boobu njuumte bu rëy am na ci alors la présidente. lu réyee noonu ci pencum ndawi réew mi jëm ci loi boo xam ne amee na solo noonu ndax njuumte bu mel noonu jarul woon a bàyyi xel ba mu ñàkk ci euh, Pape gis naa ni am na ay député yu dem déposer recours di wax ni ni ñu compté dañu cee juum compte bi dafa ëpp loolu la ñuy wax mm-hmm. li nga xam ne moom a ci jaaxal Moustapha Diakhaté sax dëggal na ko dëggal man sax mën naa ko ah? dëggal yow dëggal nga ko mën naa ko dëggal mais li nga xam ne moo ci am solo c'est moo ci am problème c'est un problème de démarche parce que bu fekkee ne yow da nga toog olof doo xam ne tungu ne du teew teew ñuy nataal yow yaa ngi toog ñu konte reglement intérieur bi may na la article 84 may na la ne bu fekkee ne dañu compter yow li nga compter d'accord ci nga wax ne d'accord ma ci ñu compter waat su fekkee ne dañu compter waat d'accorduñ ci ñu ne léegi ne au ñu compter ñii di yëkkati loxo nañ def debout assis ñu def ñuy toog ñuy taxaw ñu compter su fekkee ne ba loolu d'accordu ci ñu ne nañu jël bulletin public donc loolu yëpp ay méthode la pour contester li nga xam ne compter nañ ko ñu ngi toog ñu compter ba pare ba wote ba ñëpp ñibbi te contester wuñu bu fekkoon ne nekkuñu fa woon sax ñu ne nekkuñu fa woon am na ñoo xam ne ñoom nekkuñu fa woon dañoo ñibbi woon mhm. mais am na ñoo xam ne ñu ngi toog ñu compter ba pare ne votant temps abstention temps contre mais ki compter nag te li muy compter daanaka loolu moom gisu ko mais kooku itam xanaa am na ci responsabilité. moom du ci wax. mais li nga xam ne moom te gisu gisu ko di compter un alors que foofu benn fa. li nga xam ne moom laay wax Pape. waaw recours ba ba ca conseil constitutionnel mënoon naa ñàkk mënoon nañ ko régler biir assemblée nationale mais comme weesu na biir assemblée nationale faaw mu jëm conseil constitutionnel. waaw parce que dañu seetaan ba mu weesu mais waruloon weesu biir hémicycle bi. ci biir fa ñu compté ba pare d' accord ci lañ waroon ne eh, monsieur le président comme ñoom ni ñu ko doon waxee à chaque fois appel au règlement appel au règlement mënoon nañ def appel au règlement article 84 ñu jox leen parole ñu wax ne ah ni ñu d'accord ñu ci parce que euh, compté nañu nombre boo xam ne ëpp na. su ko defee dañuy changer beneen démarche vérifier ko ba mu leer nañ. mais li nga xam ne moo am solo ci loi bi. Mhm. majorité bi même bu ñu defee recours tam ne compte bi ëpp na ak ëppul yëpp on a eu la majorité pour faire passer la loi. loolu lan moo koy firndeel. li koy firndeel mooy les votants bu ñu compter les votants. ñoom dañu ne am na 35 yoo xam ne dañoo contre même cinq yooyu bu ñu ko dindee 644. la majorité reste toujours. d'accord c'est bon kon même bu ñu defee recours conseil constitutionnel donc le conseil va apprécier mais ñun lu ñu mën a wax en tant que député mooy on a eu la majorité pour faire passer la. alors euh, honorable député Thierno Bocoum ngeen fa nekk loon wala réglement bi daf leen réeroon pour ñu appliquer ko comme ni ngeen ko doon solicité wala nelaw moo fa amoon lan moo tax ba bu ñuy compter ngeen di déglu euh, daf leen amendement mu leer ñu carte. non man man maa ngi fa mais damay jël à témoin honorable député Aminata Diallo ba ñu compter euh, ñu wate pour parce que bëri na. ñu mm-hmm. compter wuñ en même temps parce que après dañ ne cent 123 la. Mm-hmm. après si lañ ne am na 19 délégations de vote. yoo xamante ay nit ñoo ñëwul waaye dañ ko joxe mais en faveur de la loi ñu compter ñu contre ba ñu compter ñu contre ba muy répété ne cadre la man sama bopp nee naa ko monsieur le président du cadre parce que xam nga compter lu bëri compter lu bëri mën nga si juum. Mm-hmm. waaye juróom ñetti man maa compté juróom-ñett ñu contre ñoo mm-hmm. xam ne mën naa leen citer ku ne. Mm-hmm. sama laajoon léegi ma wax la ne la Seynabou wàdd Khady Diédhiou Ndeye Dieynaba Ndiaye Aïssata Tall Sall Idrissa Diallo Mamadou Lamine Diallo Aminata Diallo Thierno Bocoum juróom-ñeenti nit yoo xam ne compté bi yomb na soo compté juróom-ñeent après ne 4 mu ne ah monsieur le président du 4 Aminata Diallo mu may dégg mais peut-être dégguma hmm. mais loolu yëpp du problème parce que il faut que nit ñi comprendre que ne ñun suñu recours bu ñu def ça n'a rien à voir avec ça mais kon d' accord ngeen ni majorité bi emporté na ko. non d' accord non loolu féete na boor. non xam nga lu ñu bëgg a leeral. non lu ñu bëgg a leeral d' abord pourquoi ñun ñu wax mbirum décompte bi. Mm-hmm. parce que dafa war a leer si bopp askan bi que ne benn kenn ku nekk si opposition bi voté wul loi bi. dafa war a leer si bopp askan bi que ñoom seen majorité sax ñoom ñëpp voté wuñ ko am nañu taxaw contre loi bi. donc loi bi bu ñu gëmloo nit ñi que ça a été plébiscité maanaam ñëpp si d' accord ba mu toll si 142 loolu amul. mais moo tax loolu lañ bëggoon fësal. mais. tey ñun dañ déposer recours ci conseil constitutionnel parce que dañ jàpp na ne disposition yenn yi ñu wax sànq te ñu waxtaan ci c'est anticonstitutionnel dafa doon loo xam ne dafa méngoowul ak lu constitution bi wax moo tax ñu jël recours bi déposé ko ça n'a rien à voir ak affaire résultat vote beeg et cetera. donc il faut loolu mu leer. lan moo donc moo tax ñu jàpp ne. tey je vous nga baal ma rek tontu ko s'il vous plaît xam naa ni laajul man may laaj mais lan moo ci méngoowul ak constitution bi la lay wax. non lu si méngoowul ak constitution bi wax nañ ko léegi. Mhm. benn bi mooy la constitution dans son préambule défend les libertés fondamentales. tout à fait mooy ni nga ko waxee sànq waaye. notamment la liberté d'association. tout à fait. dañ ko dañ ko énumérer. d'accord d'accord honorable ñoom tey lu leer la constitution bi dafa may. vraiment par affinité. exactement foo bëgg a bokk nga bokk fa. ñoom tey kon yaakaar naa ni assemblée ñoom tey liberté boobu. ñu ne ñoom ñoo koy ñu ne ñoom dañu koy dindi si ay député maanaam yéen député yi amu leen droit am affinité ak keneen. te liberté ci démocratie ku ko yokk waroo ko wàññi. non non non balaa nga yegg. nekkul ne dañuy violer constitution par rapport à la liberté d'association mm -hmm. au début de la législature mais tout tout homme tout député est libre de s'associer à qui il veut et dans n'importe quel groupe bu mu bëgg boobu kay liberté d'association mu ngi nii acca tànn leen ku nekk prendre sa liberté dem na man groupe bi laay bokk dafa xaw a doy waar à l'intérieur donc moom dafa bëgg wax ne soo xasee ba dugg jeex na déglu rek boo xasee ba tànn tànn nga kañ tànn naa ne fii laay dem tànn nga fa bokk liberté d'association est respectée waaw ñu yeggale rek xam nga mhm. euh, soo soo nekkee si groupe jóge si parti mhm. yow defu leen fusion seeyoo si APR mhm. yow parti politique nga tout à fait nga mun a am ay orientation ne raay bii du ma si jóge nga ànd nit ba si kanam mu dévier raay ba nekk si leneen yow nga war a am droit ne man lii bokkatuma si maa ngi si leneen d'accord liberté boobu ñoom lañ nekk du fi amee d'accord maanaam yow nekkoon nga ak ñun ba par force da ngay nekk ak ñun ba faw waaw loolu nag lañ jàpp ne ne méngoowul ak constitution moo tax ñu voilà recours boobu mu am ci nag ku xam-xamam màcc ci wàllu yoon itam muy xelal ki nga xam ni mooy président de la république muy Ismaïla Madior Fall mu yëkkati ci ay kàddu yoo xam ni am na neneen nu ko nit ñi gisee parce que dañu jàpp ni bu demee ba euh, di xam le ni conseil constitutionnel waruñu nangu euh, loolu nga xam ni mm, député yi indi nañ ko ci ñoom bi nga déggee loolu ndax jàpp nga ni noonu la war a waxee ndax noonu la war a demee nan nga déggee kàddu yooyu euh, honorable député man juriste du ma juriste du ma juge du magistrat. Hmm. donc am na ay débat yoo xam ne dama koy bàyyi ak juge yi ak magistrat yi. mais li ma mën a wax mooy madame li ma euh, mën a wax mooy xam ma yeggali recours bi nga xam ne déposé nañ ko man de Awa Gueye ba ma nekkee Sénégal ba tey mosaguma gis assemblée nationale légiféré ba pare ñu ci revenir musuñu ko gis bu fekkee ne kon ñoom lool la ñuy xaar ci conseil constitutionnel yaakaar naa ne ah danañ xaar ba sonn waaye loolu du am parce que ah, assemblée nationale bu légiféré ba pare peut-être mu am ay procédures yu ndaw yu war a euh, lu war waaye ñu revenir ci loi bi loolu dana ma jaaxal trop. kon muy dëggal li kàddu yi nga xam ni Ismaïla Madior Fall wax na ko euh, mu mu mu wane rek ni assemblée nationale bu ci pare conseil conseil constitutionnel mënatu ci dara ndax mm, yow mën nga. ko xam nga loolu méngoowul ak ak droit méngoowul ak dara mbirum politique la xam nga waxu Ismaïla Madior daf ñu bett. Mm-hmm. nu mu ñu bettee mooy d'abord moom dafa nekk ministre bokk ci pouvoir exécutif. suñ jëlee dossier jébbal ko justice mu war ko saytu daf si war a maandu. Mm-hmm. lu mu def nii genre mel ni kuy influencer la justice la te loolu c'est inacceptable beneen bu si topp mooy lu mu wax si biir wax naa ko léegi démontrer naa ko lu mu wax si orthodoxe bi un dixième loolu yëpp amul parce que wax naa la léegi loi yoo xamante ne nekkul woon loolu beneen bu si topp nee na bi règlement intérieur nekkatul loi organique moo tax waratul dem ci constitution dama koy renvoyer ci loi organique numéro 99 71 du 17 février 1980 boo xamante ne ne moom moo nekk ci conseil constitutionnel article premier bi dafa ne. le conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des règlements intérieurs des assemblées. donc le conseil constitutionnel. non loolu leer est compétent. waaw ah, ah, loolu leer na pour xool xool lii ñu ko jébbal. maintenant moom na si génn. Ah, parce que non parce que c'est important lu may wax ni na na dama jàpp ne tey dañu nekk si réew moo xam ne am na yoo xamante ne dañ ko jël avec beaucoup de sérieux tey fii ñuy yóbbu bëgg a yóbbu Sénégal dañ ko d'accord moo tax ñu jébbal mbir mi conseil constitutionnel mm-hmm. nañu bàyyi conseil constitutionnel mu def liggéeyam mu bañ am influence te ñu xam ne ne mbir mi aussi dinañ ko topp mm-hmm. parce que dañ jàpp ne Sénégal tollootuñu fu ñuy delloo démocratie ginnaaw tollootuñu fu ñuy tënkee ay liberté d'accord et c'est c'est dommage président euh, xam nga Pape waaw euh, mais xam naa ni mooy nekk sa mot de la fin rek s'il vous plaît mm-hmm. danga koy da nga koy cadre ci ci nga xam ne fa la Ismaïla Madior waxee parce que Ismaïla Madior bu ne loi Euh, règlement intérieur ce n'est plus une loi organique. Mhm. dafa ne compte tenu des réformes de 2007 et 2008. Mhm. donc foofu la sukkandikoo pour wax ne nekkatul loi organique moom référence bi mu andi léegi dégg nga ko léegi nee na euh, c'est une référence de 80. d'accord Ismaël Madior a bien dit compte tenu des réformes de rek dafa ne loi organique la moo tax. waruñu ko jébbal conseil constitutionnel daf ko war a déclarer irrecevable organique moo tax. voilà waaw ma ne ko. conseil constitutionnel article premier bu loi boo xam ne. man ci forme bi rek laay wax ci intervention waaw damay yeggale foofu rek loi bu régir conseil constitutionnel dafa ne moom compétent na pour xool. règlement intérieur assemblée yi. yegg yoggul si ndax ordinaire laa ak loi organique la ak loi ordinaire la. soit soit mais dans tous les cas euh, Pape Ngagne. xam nga débat bi dafa mënoon ñàkk fii si senegal ay débat Euh, du ma génnee groupe bi du may mën a dugg groupe bi euh, pour ma constituer groupe parlementaire quinze députés du am sénégalais yi am na leneen loo xam ne moo leen gën a intéressé ah, te li leen gën a intéressé li leen gën a intéressé yaakaar naa ne ñu ngi ciy taxaw mun naa wax ne nguur gi mu ngi ciy taxaw. d'accord parce que boo gisee. non loolu beneen débat la. bàyyi rek ma yeggale. non non non bàyyil ma yeggale rek. honorable bàyyil ma yeggale honorable bàyyil ma yeggale. du ma indiwuma beneen débat dama bëgg wax rek ne politique politicienne bi daf fi war a jeex d'accord ay ay affaire u fii ay kii yooyu dañ ko war a dépasser jublu ci li nga xam ne moo intéressé tout à fait en tout cas sénégalais lan naka la def ba suqaliko naka la ñuy def ba émerger naka la ñuy def ba génn ci ndóor Thierno si loolu nag ngeen taxawul euh, <laughs> madame la vice présidente loolu taxawul leen si beneen débat la parce que je pense que tey dañ doon wax si mbirum assemblée nationale tout à fait d'abord les institutions c'est important moo tax le président de la république ne day def réforme des institutions yoo xamante ne xamuñu seen rôle gestion yoo xamante ne dañuy jàpp ne ne séparation des pouvoirs amul dañu war a jël mbir yi jébbal ko exécutif loolu danger la pour un pays. d'accord 23 juin ba mu amee. c'est parce que assemblée nationale dafa amoon problème. donc nañu xool lu ñu. mais mais c'est bon euh, Pam Ngagne. amee ah, keroog bi ñuy wote loi bi loi bi assemblée. dañu émeute tout le monde dugg dans internet woote. tout à fait à un rassemblement populaire. gisuñu sax ñetti nit merci beaucoup alors. pour wane ne li intérêt wu Sénégalais ñetti nit sax gisuloo ko assemblée nationale. d'accord le message est dans l'internet d'accord d'accord alors doon ànd ñun ci télévision Futur Média ñi ngi leen di gërëm bu baax waxtaan bi nag xam nga ni ay parlementaire di ay député lañ ko seqaloon euh, te ponk yi ñu yëkkati woon yëpp daanaka mënuñu ko woon euh, vidéo waaye am na yeneen yoo xam ne ci wàllu actualité euh, bëggoon nañ ko càmbar ñoom parce que ku ci ne da am ci wàll boo féete ñu waroon ci taataan seen xalaat xam nga ni ki nga xam ni mooy Awa Guèye mi ngi fare ci APR waaye jombul ëllëg ci beneen jotaay dinañ ci dellu soit ñu leen di gërëm bu baax muy premier vice présidente ci assemblée nationale Awa Gueye ci Thierno Bocoum di honorable député bokk ci camp bu réew mi ñuy gërëm Vieux Diouf bu baax ci la régie ak ñi nga xam ne ñoo ko ci jàppale Babacar faal itam ci ni mu jàppee ci émission bi di leen wax ni ci intégralité émission bi mën ngeen ko seetaan ci gfm.sn ak ci Facebook Faram Facce l'officiel ñu leen di jox daje incha allah alal ba bële di ñëw bu ci àllaan day jërë ngeen jëf. trop c'est trop mbir mi dafa ëpp léegi. audit yi d'accord nañ. bu ñu sa jógee du auditer samay doom ñaari doom yi nga xam ne liggéeyal nañu gouvernement. procédure la.